ah bëri naa fi combat ko combat yooyu yëpp yi nga bëri Dakar yëpp amoo fi defet non non yëpp dama xaa daan mais Zalman ne kon yow sa carrière lépp nga boole Diourbel boole dakaar yëpp benn defet nga am mooy benn defet la am muy Noiro turu professeur bi kañ la ñëw professeur Mané si mbapat bi laa ko jële ndax fii mooy Grand Yoff waaw naa fi combat yëpp daan yëpp mbapat yëpp laa bëri daan mbapat yëpp mm-hmm. professeur bi waaw mbapatu Grand Yoff naa mbapatu Grand Yoff yëpp daan mbapatu Grand yëpp waaw ok mais professeur boobu euh, ginaaw bi mu daanee Sandiara te si biir loolu. dafa am benn euh, benn waa ju ma dégg mu doon def si commentaire wu muy muy muy muy muy commenté. Mhm. si palmarèsu Siteu. damay fàtte tur bi. mu ngi ko doon def si benn site en direct moom ak euh, kii nu mu tëdd yi nu mu tëdd yi non non ah même pas même pas Toldo kii kii def kii def kii def temps yi en direct ak mbër yi rek il s'appelle comment encore. Fadam 2. muy def ak Fadam di wax Fadam palmarès yu Siteu di ko wax ñi mu daan ci mbapat. Mm-hmm. di ko wax ba wax na ko moo daan Mame Balla. li maa la ko ne ko bëri na ak professeur Mané daan professeur Mané non non Siteu mu may déglu. jàmm gën jàmm gën ñu ngi may déglu. taalibe la sama mbokk baay Fall ci ñoo bokk Serigne Sidi alxuraan mm-hmm. mais man musuma daan. non non musuma daan ci benn benn benn benn compétition moom sax loolu moom ñàkk na ki ñaan ba da koy wax musuma daan ci compétition bu ñu mës a def. muy tournoi man maa ko jël ci koom. Ah. waaw loolu na leer quoi. si te kon bëri ngeen tournoi nga daan ko. waaw dañu doon bëre tournoi wu Serigne Sidi Mbacke bu Daaru Salaam. yi ma ko fa fekk yëpp daf ma aal rek ma dem. amul benn benn benn boo xamante ni bëri na kook man mas cunil waxuma laak mu daan ma cest à damay damay leeral parce que fi mu ko doon waxee am na ku ko dégg sax ba bëgg koo widdi si ay commentaire ma ne ko jaru ko bis dina mës a ñëw ma leeral ko. ok waxi moo ko nag parce que dafa nekk tey si komba moom ak Papa Sow que le meilleur gagne sama sama sama mag bu baax la am jom am caractère tey su may roy si mbër Papa laay roy parce que dafa am caractère nit la koo xamante ne yàlla da koo baaxal ba pare mu gëm boppam moo ko yeggale fi mu yegg Siteu Baye Fall dafa am yërmande si mbokku taalibe yi muy àndal yëpp. Mm-hmm. moom it moo tax suñu borom di ko suturaale nii. kon ñaari combat boobu noonu euh, yàlla na si promoteur bi am li mu si doon séntu. mbëri yàlla nañ ko bëri si jàmm ak salaam lu wuuteeg bi njëkkoon am ñaawoon na rafetlu wuñu ko waaye nag na séntee laat seen taxawaay ak seen matukaay ba nga xam ne combat bi dina yegg si jàmm ak salaam ku daan baax na parce que ay doomu doomu réew mi lañu. ko daan. non musu ma daan. yoon ngeen mës a bëre. non ñi bëri nañ tournoi ñaari yoon. Mm-hmm. def nañ ko yëpp waaw yaa ma gën a xam. damay ñëw rek daan ko jàll. ñaar yëpp da koy daan. non ak du moom rek nag de bëri na mbëri yu doon ngemb si si si si loolu. bëri woon na mbër yoo xamante doon ay ñoom euh, ay ñoom ay ñoom je crois que ñoom tigre yëpp si lañ doon ngemb ah xam nga eh. bëri woon na mbër yu si doon ngemb ay alura mbëru jàmm gën yu bëri mais yàlla dafa dogaloon ko ni jamono yi ma fekkee bëri ko yëpp maa ko jël man. ñoo hmm. jàmm gan ñu ngi may dégg émission bi yaakaar na Wassare TV kenn waxatu ko. moo gën a siiw pompe muus na leer ah. Hmm. donc kon ñëpp ay koy seetaan buñ ko mësaan a teg man maa ko daan jël. daawul nag yomb ndax ay ndaanaan rek laa fa daan boobu ñibbisee gu ma Grand Yoff mais su doon koy làqatu du ne maa ngi nii su nekkoon ay foo du ma ko fi waxee. damay nëbbatu wax ko wala di ko wax samay waa koñ di dundal seen xel ak seen xol. mais lii dafa clair que ni saañ ko tegee boo demoon jàmm gën laaj leen ñu ne la Saliou Mané saañ ko mësaan teg mu fekk ko fi moo ko doon jël. Grand Yoff bii ma nekk ay doomu Grand Yoff laa toogal ñëpp may dégg. ikri yee ngi fi. ikri yi ñu ngi fi ñëpp ngi fi. mbabat buñ fi mës a teg te ma bëri ko ñaari yaar lasandeer ñoom nongoloo ñëpp fi lañ daan bëri si fii maa bëri daan ñëpp kenn mosuma fee daan grand foofu it na leer tasaare ko doo dégg ku la miim ak ku la weddi mosul am looloo indi professeur looloo indi professeur Mané nekkul dañu waxee xëy tuddee ma professeur Mané damaa daan ñëpp te ñoom du ñu mag si ñun ak man